bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi fi teew bokki taalib yi ñoo ngi tàmbalee kàddu ci nuyoo ak ziyaar jiital ci alxalifatul aam lil muridina Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam waaye di nuyu ak siyaar bu baax njabootug sëriñ Ibrahim Ndiaye gi nga xam ne lañu lañ fekk si waaye ci boppi njabootug Baye sëriñ Ndiaye teg ko ci loxol xalifaam sëriñ Ibrahim mu jot lu ñu ko mbooleem bokk yi nga xam ñoom lañu fi fekk si di nuyu ak siyaar bu baax sëriñ Abdullahi moom Cheikh Modou Moutada di teg ci moom sunub siyaar mu jot lañ mboolem njabootu Cheikh Moutada sant bu baax sëriñ Moutada ci ni nga laytaaye jataay bi li bokk yi sàkk woon ne nañ ci waxtaan nag day jëm ci al iradatu sadiqa buñ ko bëggoon a tënk ci wolof mooy am murid dëgg-dëgg nu mel wala boog lan mooy ak taalibe dëgg-dëgg wala boog lan mooy ak taalibe dëgg-dëgg tàmbale jataay bi nag ci ñaan ci barkeb guddi gi ak ki ñuy fàttaliku sunu boroom ful jàmm ak yërmande ak barke te saare ko ci àddina bi yëpp waaye rawatina réew yi nga xam ne ni ay jullit ñu ngi fiy dund rawatina sunum réew di Sénégal di sant itam daayira bi nga xam ne mooy tey si te sàkku ñu fàttaliku ci guddi gi kenn ci magi taalibe yi nga xam ne nii ñoom lañuy faral di fàttaliku ci yoonu murit fàttaliku nag ni ñu ko xamee mën nañ cee jublu ñaari mbir bi ci jiitu mooy ñaanal ki nga xam ne nii moom lañuy fàttaliku sunu boroom yokk yërmandeem ak i leeram waaye itam fàttaliku lenn ci ay jikkoom yi nga xam ne nii mën nañ koo jariñoo ci sunu dund te Sëriñ Tuubaa waxoon na ci ay bindam ne ju baax fi bàyyi ko dana fekk nit ci fa tëdd di ko fa jariñ comme ni muy jariñ ñi nga xam ne nii ñoo koy def mu am solo nag buñ toogee jataay yu mel nii ci ni bokk yi tom tànne tomb bi ñu fàttalente lenn ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa di laanu te mooy yoon wi nga xam ne nii ci la jaaroon ba yar ci mat ñi nga xam ne tey ñoom lañuy ñuy fàttaliku te ku nekk xam ne ne ñi ñuy fàttaliku ay benn lañ ci ay junni nit yoo xam ne ni ñoom ñoom ñoo maasee na woon di dundandoo jamono waaye ñooñu bañ fi bàyyi koog léegi kenn fàttaliku leen. kon jëf juñ def ak yar ñu def ci ñoom moo tax ñu leen di fàttaliku njàngale moomu nag di njàngaleem sëñ Tuubaa mi nga xam ci la yaroon mag ñi ñun ñëpp xam nañ ne yu bees yu baree bari dugg na ci waaye tam ay ëcc wala boog tawil yu baree bari dugg na ci yoo xam ñu koy def dañ koy def kem nim leen neexe seen xel ak seen bànneexu bakkan waaye ñu bàyyi xel ci ne méthode boobu ñuy waxtaane maanaam bu doon jëmmi nit ñu koy misaal dañ naan lay tax mu taxaw mooy yaxub di gannaaw bi mooy al istiqaamatu te mooy jub ak banqaas yi nga xam ñoo ci banqaasu muy jaamu yàlla yi nga xam moom la sunu borom gërëm lu moo tax njàngale moo xam ne ni dafa am ay baat yoo xam ne ni ci la ko sëñ bi tënkoon baat yooyu nekk yaakaar naa bu nu ko leeralee rek danañ daal di mën a xam lan mooy murid saadax leeral ko nag dellu ci ni ko sëñ bi bindee woon ak mag ñi nga xam yaroon na leen ci boo ko defee ñun nag ñu xool naka lañ koy jëfandikoo ci sunu dund boobaa nag ku nekk yaay nattal sa bopp ndax ni ngay doxale dëppoo naag ak taalibe wala boog iraada sadiqa ku nekk mën koo nattal sa bopp mën a àtte sa bopp baat bi ci jiitu ñu lor koo laaj mooy lan mooy murit yi ak murit mooy lan ak murit mi ngi jóge ci baatu iraada iraada mooy ak nammeel ci wolof na mel nag bu ñu ko waxee fi liñ ci lu mooy nit ki am ak dogu gu ànd ak ràññee ci fas yéenee jooxe jëf joo xam ne nii ju ñu xam la mooy nit ki dogu ci fas yéenee jooxe jëf joo xam ne nii ju xam la waaye tam mu ballu jumtukaay ak yoon yi nga xam ne ni ci la war a mën a jaar ba àgg foofu moo tax sëñ bi tëngoon ko ne murit wala iraada dëgg-dëgg daal mooy koo xam ne nii nammul lu dul ngërëmul sunu borom fu mu mënti jub ngërëmul yàlla nag balaa nga caa mën a am da ngay xam fi ngay jaar bàgg foofu yaakaar na nag bokk na ci liy fondement dundu doomu aadama nag mooy ne nit mënta bëgg la mbir te mbëggeel nga doon dëgg su fekkee xamul lambu làmbu dëgg-dëgg xamul tam la muy bëgg la muy laaj ci moom ba mën koo jëfe kon ak murit xeetu yarin la woo xam ne nii mu ngi sukkandiku ci defar sa yaram ba mu mel ni mu war a mel waaye defar sa ruux ba mu mel ni mu war a mel moo tax kenn ci ñi doon tàgg sëriñ boo xam ne ko huwal gawus wal miqyaas rabba qulubana wa ajsamana fal kullu saafin wa nee na mooy defar suñuy yaram ba mu ba mel ni war a mel waaye tam defar suñuy xol ba ko ñu gis xemmeem kon murit gi du ci col gi du ci dëkk dëkkuwaay du ci doxin donte yooyu am na solo ni ci yittewoo ngir li ci kaw mën a dëppoog li ci biir waaye ak murit melokaan la woo xam ne nii nit ki day koy doxe ci dundam gi ñuy gis bis bu set bu ko defee melokaan lay doon woo xam ne nii ku ko gis daf koy xemmem mu koy xëcc ngir mu mel ne moom loolu mooy secret bi tax njàngaleem sëñ bi tasaaroo tasaaroo gu gaaw gaaw te kenn propagandalu ko kenn wër ji ko wooteel waaye mag ñi ñuy fàttaliku ñoom la sëñ bi defaroon rek yabal leen ci ay barab ku nekk sanc ci barab di fa doxe doxin woo xam ne nii ku la gis xemmeem la ku ñëw nag ba wan la ne damaa bëgg a mel nii nga mel nag nga ne ko ngir nga mel nii nag nangam ak nangam mënu cee ñàkk moo tax mag ñu baree bari seen morom yi mag ñoo leen wommat indi leen ci sëñ xëy nag tasaaroo gu gaaw googu nag yoonu mu di tasaaroo tax na bari nañu ci dugg te mën naa am tur rek li ñuy dégg xamuñ sax la muy teg dëgg-dëgg ba noppi nag wëlbati ko ñoom di ko firil seen bopp ci seen seeni déggini bopp te duñ dellu ci cosaan yi nga xam ci lañu war a dellu léeg-léeg ngay dégg ko la murit gi xeetu yëngu-yëngu la boo xam ne dafa ñëw ngir goreel nit ku ñuul xëy na bokk na ci taxoon sëñ bi jóg goreel xeet bu ñuul waaye ku nekk xam ne ne njàngaleem sëñ bi raw na couleur ku weex mën na cee bokk ku ñuul mën na cee bokk ku xonq ak ku mel ne kon bëgg koo tënk ci ne dafa jógoon ngir goreel nit ku ñuul xatal njàngalem sëñ bi ak ñàkk ko dégg ñenn ñi di ko firee ne sëñ bi doon jëfandikoo non violence te mooy ñàkk a jëfandikoo xiis mooy ak metit ngir mën a xeex tubaab bi dëgg la xëy na xeex tubaab bokkoon na ci tax sëñ bi jóg waaye ku nekk xam na ne tubaab bi du woon jubluwaayu sëñ bi xëy na lu ko dab ci aw yoonam ñenn ñi dem ba jàpp ne sax murit gi mooy loo xam ne daf lay wayafal say jaamu yàlla boo ci duggee loolaat ku nekk xam ne ne dañ ko gis ci kanam murit dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii damay toggoo ci jaamu yàlla ñu ne ñu di murit sax ko toggoo am nañu sax sax koy jaawaleeg xeeti li ñuy tuddee rastaman maanaam ñi nga xam seen kawar dañ koy lit mu wàcc ñenn ñi dem bay jaawalu mel nga gis ne benn benn noir américain ak ñu mel noonu Amérique latine léeg-léeg dañuy jàpp ne ñoom murit yi seen i mbokk lañ ngir ne xëy na am na ci ñoom ñoo xam ñoo bokk ni ñuy def seen i kawar ak yu mel noonu ci ay firin yu baree bari yoo xam ne ni tasaaro la ñu koy gis xëy na liñ ci mujj a dégg nag ñu koy firee di wax bàmba ji bàmba ji xëy na bu njëkk daanañ ko jëfandikoo waaye nag néewoon na lool ndax ku nekk xam ne ni yoonu murit sëñ bi mës koo askanale boppam di ciw sant di ci dëkkam di ciw turam waaye daf ne muridullah mooy kii nam ma dem ci yàlla moo tax ngir ñu xam dëgg dëkk kon lan mooy baatu murit dañuy déglu sëñ bi ci boppam mu tontul ko boppam ndax tubaab yi mas nañ ko ko laaj ne ko lan mooy ak murit dëgg-dëgg mu tontu woon leneen fondation yoonu murit mooy imaan gu tegu ci tawxiid wéetal yàlla mooy ngëm yàlla gu tegu ci wéetal yàlla waaye lislaam ju tegu ci jàng ay atteem ba xam ko te di ko jëfe waaye lixsaan te mooy rafetal gu tegu ci bëgg jàpp ne da ngay jaamu yàlla ba keroog nga fiy jóge jàpp ne loolu moo fi sab liggéey gëm yàlla nag ku nekk xam ne juróom benn xaaj la waaye ku ne ci yow ku nekk xam na ni danga nekk nit ku ràññiku lislaam nekk juróomi ponk waaye itam lixsaan mooy nga jaamu yàlla ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom donte moom ngi la gis te yow gisoo kon képp koo xam da ngaa ci yoonu murit wala nga bëgg cee sóobu jàppal ne ak murit mooy lislaam ju dara koo jul ju set wicc loolu nag sore nag ni ko sëñ bi bindee ak benn benn ci ñun murid yi ni ñu koy dunde loolu nag dafay mel ne lislaam ak jullit yi lislaam ju set wicc boo ko dee jàng wuute na lool ak ñu ngi gis ñu leen di tudde ay jullit moo tax njàngaleem sëñ bi du ñu ko natt ci ñu ngay taseel ñu ne ñu koy tuddoo waaye yaa ngi koy natt ci dellu ca mbindum sëñ bi ni ngay nattee lislaam ci dellu ci alquran ak yu mel noonu ci benn discours boo xam Cheikh Mamadou Fadil moo ko defoon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1371 ci gàddaay gi dëppook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 1951 doon na ca wax di leeral ak murit mooy lan mu ne yoonu murit mooy yoonu sunna ba nga xam na ña sellaloon seen diine bu njëkk ca lañ newoon ba islaam jot ñëwee ba suñ jonni tey jii mu ne la koy tënk nag mooy jublu ci yàlla suñu borom sa lépp waaye wan gannaaw lépp loo xam du yàlla ci lépp loo xam moo lay bijj di la jëme ci àdduna suufe si nga wan ko gannaaw mu ne nag yoon lislaam woowu nag naka jekk suñu borom da daan yónni ñoo xam ne nii dañ koy beesal ci jamono ju nekk ñi ay imaam di borom yi xam-xam di borom wàll di ay wàll yi mat sëkk mu ne nag suñu jamono ji ñu toll nag suñu borom yabal ngir mu beesal njàngale moomee ci mooy Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ñi nga xam nag doon lañ ko roy ba mu tàmbalee beesal googee nekkoon nañ kuréel gu tuuti goo xam dañoo taxook moom mu taxoog ñoom di leen digal sellal ci jaamu yàlla di leen soññ ci taxoog liggéey ngir yàlla di leen yar di leen teg ciy teggin di leen fexe bañ xool seen bët fu kawe bàyyi yëf yi suufe yi di xool ca kaw di jikkoo jikko yu baax yi di am pëstéef di leen yéege ñuy topp ay ndigalam ak lépp loo xam ne nii lu mu leen digal ñu wommatu ca loola nee na ñooña nag ñoo dem ba am xaqiqatul wusul te mooy àgg gu wér ci barkeb sëriñ boobu ñu am liñ am ay xar baax di feeñ ci ñoom ay karaamat yu baree di feeñ ci ñoom mu ne nag bi nit ñi gisee yooyu nag melokaan yu baax yooyu nag mu tasaaroo seen jikko yi tasaaroo ci ñoom ñu daal di commencé soobu seen yoon di ci dugg ay groupe yu baree bari nee nag siiwam daal di yokk tasaaroom daal di yokk ba ñëpp ba ñenn jàpp ne Euh, ki ko ki nga xam ne ni moom lañ koy jàpp ne moo ko sos dafa sos tabax bi fekk na dafa ñëw ngir beesal moo tax nañu dem ba nag bu ñu baaxee baatu murit xel yépp dem ci ñu toppoon Serigne Touba radiyallahu anhu waaye Serigne Fallou nee na ak murit mooy ñi yeesal lislaam mooy lislaam ju set ñoo xam ne nii dara kooju moo tax képp koo am bëgg ngaa xam lan mooy murit kon da ngay dellu ci mbindum sëñ bi te loolu dañ ci ñëwaat kanam tuuti bu ñëwee ci lan mooy al iradatu as-sadiqa murit googu nag ñu xam ne sëñ bi da ko teg ci ñaari ponk yoo xam ne nii ci la taxaw bi ci jiitu mooy ab sëriñ akub taalibe mooy murit wala boog njàngale bi sëñ mënta taxaw te ab sëriñ amul waaye tam ab sëriñ mënta am te ab taalibe amul ku nekk nag sëñ bi dañoo wax nam war a mel boo ko xamee dangay ngay daal di xam njàngale bi mooy lan ku ne xam ne ab sëriñ ci njàngaleem tasawuf bokk na ci yi mënta ñàkk ci ngirum tasawuf ñoom dañoo gis ne sóobu ci ngirum tasawuf te amoo sëriñ bu lay orienté di la teg ciw yoon mooy dangaa da ngay mel ni kuy xuus ci géej te mënta feey ñaar la ko cay fekk mën naa doon ab safaan moo ñu ba ñu bindoon ne képp koo xam dem nga ba amoo sëriñ bu lay teg ci yoon jàppal ne foo mën di jëm seytaane mooy doon di la teg ci yoon di la digal di la aaye di la wax fi nga war a teg sa tànk waaye na nga gis ñun jamono jii ni ñu wëlbatee baat boobu wutal ko suñu nattukaay yi bopp ci ni ñuy sëriñ léeg-léeg ñu day jàpp ne ab sëriñ mooy ki mën a dajale mbooloo mu gën a bari ak nag nu mu leen dajale te fekk ne loolu du nattukaay ci sëriñ am nañu àgg ci yàlla lool te mën naa am boo gestoo seen gannaaw doo ci seen mbooloo waaye te mën ngaa gis ku mbooloo mu bari topp ci gannaawam lool te fekk na demagul fenn kon mbooloo du nattukaay ci sëriñ naka noonu itam léeg-léeg ñu leen di natt ci dëkkuwaay fañ dëkk na mel seen lañuy war na mel wala yu mel noonu te fekk na loola sax moom daa bokk ci li sëñ bi ñëwoon ngir wàññi bëgg-bëgg boobu ci nit ñi léeg-léeg ne sëriñ mooy ki nga xam daf lay ubbil bunt ngay def lu la neex mu dig la àjjana te du la teg ci yoon wu lay yóbbu ci àjjana ñenn ñi jàpp ne sëriñ mooy koo xam daf lay dig loo xam ne leeru ci boppam lool lool wala sax yu mel noonu daal yu baree bari ci ay nattukaay yoo xam ne nii dañ ciy nattub sëriñ te buute naag li sëñ bi waxoon loolu nag li mu yëpp mooy ñenn sax ci ñi ñu tuddee sëriñ dañoo dem ba mel ne loola daf leen di bëgg a nax ba ñoom ñu fàtte seen mission bi leen taxoon a jóg te mooy orienté nit ñi jubbanti leen teg ci siraatal mustaqim moo tax nga gis léegi ñi ñu tuddee sëriñ yu baree bari léegi di rawanteeg ñeewñee ci mbir yooyu ma tudd léegi fekk na tasawuf dafa ñëwoon ngir wëlbati gis-gisu nit ñi walif ñuy jublu ci mbir yooyu moo tax sëñ boo dee ci daf lay leeral sëriñ ñi doon tuddoo sëriñ te jamonoonte woon ak moom ci façon yu baree bari mu ne la nag melokaan yi koo gis bul jàpp mu nekk sëriñ la mu ne xam nañ ne li ëpp ci ñuy tuddooy sëriñ ci jamono ji ay fiir lañ loolu sëñ bi moo ko bind isbaana jahra annama siyu gaza zaman julluhum fuxuux nee nañ jëpp ay fiir lañ nee na ñu bari ñoom dañuy fas yéene taxaw ci kanam nit ñi te xàmmewuñ lan mooy farata ak sunna ba noppi di xaj ci nit ñi di leen yume ci ay fitna nee na foo leen fekk dañuy woote ak mat àgg ci yàlla di wooteeg wilaaya di la jommal ci ay nettali yu baree bari yoo xam la jëpp bu tegu ci fa mu war a tegu nee na foo leen fekk boo taxawee ci seen kanam tagg beneen sëriñ nga mën koo xam ci seen xar kanam na muy soppi ko ngir ne am na luy ñox-ñox seen xol wala bëggu dara sëñ bi nag nee koo xool ba gis ko mu mel nii nee na bàyyi ko yow murit bi te mu wóor la ne ci ñuy rëbb poñ poñ yi tub àdduna ci la bokk mu dem waxaat feneen ne fa man ala siwal ilahi dallaka fa firra minu innahu fa innahu adallaka nee na ku lay koo dem ci moom mu wan la leneen lu dul yàlla nee na loo man bay ba nga daw ko te xam ne ci sànk la moom la jëm moo tax sëñ bi waxoon nañu ni ñuy nattab sëriñ mu ne boo demee ci nit di ko natt bëgg koo jox sa bopp nee na natt ko ci ndigali yàlla yi ak tere yi nee na bi fekkee gis nga li yàlla yi digle lépp lam ca lépp di ko def te gisoo ko muy def lenn yàlla tere nee na booy tànnub sëriñ tànnal kooku te ne mooy sëriñ nee nag boo ko gisee muy bàyyi lenn ci ndigali yàlla yi te tey ko wala muy def ci lenn li yàlla tere te tey ko nee na donte da nga koo gis muy frank laaj ko asamaan si jàppal ne ay pexe la waaye kooku du ko war a jox suñu bopp moo tax mu ne amal waliyu fa innahu dubtitaan min haysu ma yakunu fil anam nee na kilifa waliyu dëgg-dëgg foo ko fekk dafay nëbbutu bu nekkee ci biir nit ñi du bëgg sax ku ko xàmmee moo tax ñii ñuy fàttaliku tey seen woyof ak seen wàcce seen bopp moo taxoon ñu jamonoon teewoon ak ñoom sax xamuñ leen bu baax su ne mag ñu baree bari ñi ngi door a xam seen valeur dëgg dëgg dëgg bu jàngate seen biographie jàngaat seen siira ndax ña doon dund ak ñoom wayafaay bi ak jaxasoo geeg ñoom taxoon na nañ leen waroon a xàmmee xàmmee wuñ leen ñoom ci kenn ci mbedd doo ko ci toroxloom ak dëddu àddunaam doo ko mën a xàmmeeg ñi ngay tudd ay taalib daa nga dégg koo xam buy dàkkanteel boppam dal afqarul fuqara ki gën a ñàkk ci way ñàkk ñi mu lay dàkkanteele boppam ne la nga dégg ku gis ne ahqaru man yura ki gën a xeebu ci ñi ngay gis moom ngay gis nii wala nga gis koo ne ubaydu rabbihi njaamus boroomam du nagoo nekk sax jaamum yàlla waaye danaan njaamus boroomam moo tax gis nañ ci mbindum sëñ bi ay dénkaaneem ñu ne mas naa dajale mbooloo mi taalibe ak sëriñ si daan leen leen na ngeen fexe ba bu taalibe yi wor sëriñ si waaye itam sëriñ si nañ fexe ba bu ñu wor taalibe yi mel ni dañ koo laaj noonu la muy demee nee na sëriñ taalibe maanaam sëriñ buy war taalibe nee na mooy mu gis ci taalibe lu ëpp taalibe ndax melokaanam loolu nag ñun dafa bari ñun da ngay xam ne nii bu fekkee yàlla dafa laa may yenn man-man yi yenn daraja wala yenn amam boo ñëwee dañ jox wàccuwaay ba boo sàgg na sax da ngay jàpp na yow nekkatoo taalibe kese kese mu ne na kooka nag yaa ngi koy nox nit keeg lu manti mel ak lu manti am ak fu manti toll su fekkee dafa laa jébbal boppam da nga koo war a jaarale fi ngay jaarale taalib yépp ci déggal ko ak di ko tere waaye am amub àdduna wala man manub àdduna wala darajay àdduna bu mu tax mukk nga weesale ko mbokkum taalib mu ne nag boo ko defee yaa ngi war taalibe bi sëñ bi ko bind mu ne nag taalibe ni muy warab sëriñam nee na mooy mu gis ci moom lu ëpp ku koy orienté di ko teg ci wu yoon saa yoo jàppee ne sa sëriñ bi yàlla la wala daggitu yàlla la wala yu mel noonu jàppal yaa ngi war sëb sëriñ ku lay orienté moom la sëñ bi wax ne moom la di la teg ci yoon sëriñ tekkiwu ne day jàpp sa loxo ëllëg ne la demal dugg àjjana waaye da lay teg ci yoon woo xam ne ni boo ko wàccul ba wàccul bu ëllëgee fa gaa yu baax yi mujj yëpp fa ngay mujj kon kooku mooy sëriñ ni ko sëñ bi jàngale ku nekk nag mën nga cee daal di natt yow la ngay gis nu mu demee bu ñëwee ci baat bi ñu gën a yitteel nag mooy almuridu saadiq ak yan melokaan la am yooyu itam murid saadiq bokk ci baat yi nga xam ne nii moom lañ gën a wëlbati moom ci njàngaleem sëñ muy terme boo xam ne ni léegi sax ku nekk da nga koy dàkkanteel sa bopp ku ku dégg ñen la murid saada leneen gis koo xam sax mooy tuddee boppam muri saada ñenn ñi di ko jox ngir ne na muy dox te muy daraja joo xam ne nii ab taalibe du ci àgg lu dul dangaa def effort bu réeréy sonn sonn bu ma sëkk dem ba jeex tàkk ci soobu goo soobu ci yoonu gaa yu baax yooyu moo tax sëñ bi ñu ko toppoon li mu daan bari bari bennet yu néew lañ gis mu bind tuddee leen dàkkanteel al muridu saadix ñooñu mën nga leen wàññi ci ay baaram daanaka moo tax muridu saadix bu ñu ko bëggee xam dëgg-dëgg dañuy ci sëñ bi naka la sëñ bi moo bind ci ay mbindam ne melokaanu tënk dama ko tënk ci ñeent way ko nag ngir bañ ngeen waru daal di ñeent jikko yooyu mooy dangay dëggu ci sopp sab sëriñ nangoo topp ndigalam fu mu rote doo ak gaaral mukk maanaam doo xalaat doo ñox ñoxal mukk ci sa biir waaye tam dangay dem deme dem ba dootoo am looy tànnal sa bopp ngir rafet gooy rafet njort sab sëriñ ñeenti jikko ngi noonu kon sopp sëriñ bi topp ndigal bañ a gaaral waaye itam rekk sa tànn bàyyee ko sab sëriñ jikko yi gàtt la nag waaye bu ñu ko analyser woon ku nekk ñu mën ngaa natt sa bopp man fan laa toll bi ci jëkk mooy sopp sab sëriñ sopp sa sëriñ dëgg-dëgg mooy lan mooy la ko ku baax ko firee woon innal muhibba liman yuhibbu mutiin nee na bu fekkente ne nga ne sopp naa nit te cofeel gay dëgg ci yow da ngay nangoo topp ci gannaaw fu mu teggee ab tànkam teg fa sab tànk ñun ñii di ay doomu aadama sax bu ñu bëggantee suñu biir ku nekk da ngay nangoo topp sa gannaaw ka nga bëgg mu ne nag sëb sëriñ bu fekkee cofeel gi dëgg la ci yow dangay ngay nangoo topp ci ay tànkam mooy fu mu teg tànkam nga teg fa sa tànk waaye sopp naa sabab sëriñ mu jëm penku nga dox jëm saw boo ko cofee doxul ñuy wax loolu nag bari na lool koo ne bëgg koo ne soppoo sëñ bi mu dal sa kaw waaye koo ci xool aw dox yi nag da nga xam ne cofeel gi muy wax dese naa wér ci moom bi ci topp mooy topp ndigal ndigal mën nañ koo def ñaari xaaj bi ci njëkk mooy di ko jëli bala ngaa def dara muy sart boo xam ñu baree bari ci ñun taalibe yi fàtte nañ ko léegi bi ci topp nag mooy di jëfe ndigal di ko jëfe bu dee bi ci jëkk mooy bala ngaa def dara nga jëli ndigal loolu sëñ moo ne laa tafalu shay'an bi xayri idn fal idnu shartun fi xabuli sha nee na bu leen def dara lu manti doon te amu leen ci ndigal mu ne ndax ndigal sart la ci ñu nangu sa ngay def kon murid saadix mooy koo xam ne lépp lu muy def lu mu tuuti tuuti ci bëtam bala koo def dana ci jëli ndigal tey mag ñi ñuy fàttaliku ci ay jataay yu mel nii mooy ne mosuñoo def dara lu dul dañoo dem jëli ndigal ci seen sëriñ ci misaal tey bu ñu masaan bay bu njëkk ba mbay mi ñor amul benn taalibe boo xam da nga ñam sa mbay lu dul da dagg sayu mbool wu rëy yóbbu ci sëb sëriñ mu ñaan ne la bu ngeen demee mën ngeen a ñam nga door a ñam tool bi ñun ñëpp daanañ gis fii sayu mbool ni mu daan tasaaroo ci Tuubaa ay jamono loola léegi léegi néew na lool da nga gis bu njëkk soxna bala ngaa jox sa doom soxna wala bala ngaa maye sa doom soxna da ngay dem jëli sa ndigalul sëriñ ci misaal da ngay dem sa sëriñ ne ko kër ga dey ku mat a dem kër am na fa wala ku mat dem ku mat a denc soxna am na fa bu ko defee sëñ bi mooy xool ba gis ne ñaar ñii war nañoo ànd mu boole leen léegi nag ñun lu ñuy def mooy dangay ngay dox ngoro gi ba ngoro gi sotti ba mayee doo des ci nga dem ci sëñ bi ne ko jàppal ma bis loolu ku nekk war nga cee xool sa bopp bu njëkk ñun ku ci masaan am gone sa soxna am doom dangay denc sëb sëriñ ne ko sama soxna day am na gan mu la ban bis la nga ne ko bis sànga mun la bis ba bu ñëwee sëñ bi mooy ñëwal boppam toog xool tur bi yàlla ci xale bi mu jox ko ko ñun léegi li def da ngay dem ne sëñ bi kat sama soxna daa am gone bàyyi ba sëñ bi ñëw toog ci fauteuil bi nga ñëw déey ko ne ko diw laa koy tudde kon kay mën nga ko tuddal sa bopp jërëtul ngay wooy sëñ bi kon yooyu yu si maanaam yu doy waar nañu koy xet te fekk na ndigal mënta ñàkk ci yu mel noonu mooy waral léegi nga gis dañuy liggéey liggéey bi du barkeel dañu takk sëy sëy bi du barkeel ñaar benn at ñaari weer mu tas xale yi da ngay am njaboot ñu dëgër bopp mënoo leen dara parce laa la tafalu shay'an bi ghairi idn fal idnu shartun fi qabuli sha'n kon jëli ndigal na ci taalibe yu bari bàyyi xel ci ne képp kuy def dara lu mu tuut tuut doo ci jël sa ndigalu sëriñ jàppal ne boo nee murid saada nga sa murid saada des bi ci des nag moom xay na moom ci lañ gën a xet mooy topp ndigal fu ñëwee te doo am looy deng deng doo am li ñox ñoxi ci soxal waaye danga koy nangu loolu moom defe naa ne ñun ñëpp ñu bari ñu ngi koy jëfe bi ci topp mooy ndigal bu jógee doo ca am looy gaar mooy lépp lu sëñ bi wax lañ cay teg mooy dégg nañ ko dañu ko jëfe moo tax képp koo xam ne nii dem nga ci sëb sëriñ mu jox la ndigal nga am looy yëg ci sa xol muy ñox ñox yi donte waxoo ko sax jàppal ne sa muri saa des kon da ngay nangu ndigal sa xol sa xol ci lool te doo ci am loo ci ñox ñoxal kon képp koo xam dem nga sëb sëriñ mu jox la ndigal nga yëg dara ci sa xol jàppal ne kon sa muri des loolu lépp na kon dafay tegtal ne ku nekk ñun mën ngaa xoolaat sa bopp bi ci nag mooy salabul ixtiyaar moom mooy nga dem ba dootoo am looy tànnal sa bopp foofu nag la sëñ bi nee na ab taalibe ci loxob sëriñam day mel ne ab néew ci loxob ko koy sang du wax ne nii lañ may tërale du wax ne nii nga may defee day bàyyi rek ñuy suppaxliku ci moom bu loolu nag bu fekkente ne am nga sëriñ bu mat sëriñ bi te nga jox ko sa bopp te na ko ko war a jox sart bi ci des nga xam mënta ñàkk nag ci murid saadiq mooy jaayante murit mënoo koo doon te amub sëriñ lii xew léegi ñu naan xasida sànga mooy sama sëriñ wala xasi xasida laa tànk lu mel noonu dëgg la xasida yi kenn werantewul lu ci nekk waaye nag jaayante moom dafa bokk ci sart yi nga xam ne nii mënta ñàkk ci murit waaye dañuy gis ne lu baree dugg na ci ay yeneen doxalin jaayante mooy ñu jaayante ak sëñ bi ne ko loo ma digal danaa ko def te loo ma tere danaa ko bàyyi waaye nangoo taxoog moom te di ko roy moo tax sëñ bi bu yàgg ni man talabal wusula lil jalil falyaxtasim bi sunnati rasul ni mu ko waxee ne képp koo xam da ngaa bëgg àgg ci yàlla mu da ngaa bëgg àgg ci yàlla da ngay mooy ci sunna si yonante bi te taxoo koo xam ne nii du jeng ci zaahir du jeng ci baatin bu ko defee mu lay wommat ci xam ak jaamu yàlla di la yar ci bàyyi yenn aada yi nga tàmmoon ko kon loolu mënta ñàkk waaye fi nekk nii ñun ñii di ay tudd suñu bopp ay murid saadax kan moo ci taxoo akub sëriñam taxoo gi tax ñuy wax fi mu ne ki ñu tuddee murid dëkk dëgg mooy koo xam ne bis bu mel nii day am màggal ci misaal at mu jot benn yoon la ci am bu ñëwee mën naa dox ay yitteem ba ay tisbaar mu ñëw nuyu sëñ bi deux minutes trois minutes mu ne ko ñaanal ma damay daal di yewiku loola mooy déwén la koy gisaat defe naa kooku googu taxoo taxul ñuy wax lu mel noonu kon taxoo gi mënta ñàkk ngir mën a am bëgg ci moom beneen sart bi tax ñuy wax murid sax tam mooy nga ko jaamu yàlla muy ponk bu mënta ñàkk ci ak murid saadix ndax fi mu nekk nii man ngaa nekk jullit te doo nekk li ñu wax murit li tax ñu baat bi ñu wax ñu tax murid mooy doo jébbulu ci ab sëriñu murid kon murid dëgg-dëgg mooy koo xam da ngay nekk jullit ba pare tegaat sa bopp nag jaamu yàlla yu baree bari yoo xam ne nii bu la neexoon man na la cee bañ a fekk moo tax bu ñu jàppee ne murid gi mooy loo boo ci duggee daf lay woyafalal say jaamu yàlla wala mu lay tax nga mën a yenn sart yi loola defe naa ne ñàkk dégg njàngaleem sëñ bi ci la bokk moo tax mag ñi ngay gis ñu leen di fàttaliku am na ñoom ñoo xam ne nii tegoo woon nañ ci ay jaamu yàlla loo xam ne nii newaan mi ko daan tegoo ci misaal koo xam ne nii day jël kaamil alxuraan naafila ko si guddi def ko ñaari rakka wala koo xam day sasoo guddi gi jot mu naafila téeméeri rakka ak yu mel noonu te loolu lépp boo ko defutoon du tee sag njulit ñu nangu la tax kon mu tasawuf dëgg mooy koo xam day tegteloo tey toggoo ci ay naafil ak i jaamu yàlla lu baree bari moo tax sëñ bi waxoon ne moom mooy koo xam ne nii <clears throat> sumtun wa joxun taw yilut baax suma saar yog yu mel noonu mu ne mooy fondation yi nga xam ci la yoonu gaa yu baax yi di jaar xëy na li ci topp bu ñu ko bëggee tënk ba tey mooy xam-xam loolu ci ñun ñu baree ba dañu jàpp ne murid dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii am njàngam dañuy jàpp ne boo jàngee ni nga war a jànge sëg murid saadix mën naa des te loola fekk na safaan bi mooy li wér nit mënta nekk murit su fekkente ne amul xam-xam bu mënta ñàkk bi mu laaj ndax sëñ bi kat moo waxoon ne murit dëgg-dëgg mooy ñi jàng ba fer ijji ci liifatu ñi mën a liifatu ba fer ijji mooy ko kon mënoo nekk murit saadix te mënoo xàmmee alif ak baa léegi nag liñ gis ci jamono mel ne murit saadix dëgg-dëgg mooy koo xam day nekk noonu xam-xam loolu defe naa ne ci déggin yu juun yi ci la bokk léeg-léeg di ku la naan la sëñ bi nekkul ci ay téere ku nekk xam na ne jenn jëmm ju nekk ci téere amul waaye sëñ bi bëgg ñu xam ko moom ci ay téere la ko def boo ko jàngul doo ko mën a xam moo tax sëñ bi waxaloon boppam ne min makaidil fujjaari laayin saddul muridina ani taallum nee na bokk na ci pexe saytaane suñu rëbb soosu pexe kàccooram yooyu nee na dox dox diggante taalibe yi ak jàng moo tax kon ñun ñii di wax ne ak murid taarix lañ war na noo xoolaat suñu bopp baax suñu digg xam-xam ak niñ koy doxale bokk na ci liy tegtale ministère itam nga am ouverture maanaam nga ubbi ko mën a jëflante ak ñëpp donte sax nag bokk leen pas-pas mooy doonte bokk maag yow am naanukaay danaa la nangul sang naanukaay waaye yem man sama naanukaay moo tax suñ waxoon ne wépp wird woo xam ne nii mën na laa àggale ci sag ci pays suñu borom ya bu la neexee man nga koo jël moo tax sëñ bi am ñoo xam ne nii daan leen jox wirdu xaadir ñi wirdu saadali ñi mu jox leen wirdu tijaan booleeg du murit bi nga xam ne nii moom lañ gën a xam loolu bokk na ci li ñuy xàmmee yoonu murit digganteem ak yeneen yeneen yeneen yeneen yoon yi moo tax suñu Mouhamadou Diop bi Lamine Diop dagana bi mu ne ne fa saadiqul muridi man yanqalib bu xukmi waqtihi wala yaqta wala yartax bokk na ci li ñuy xàmmee murit saadiq tam mooy fonk waxtu ñun dañoo jàpp ne murit dëgg-dëgg mooy ku dul am programme déedéet murit dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii day programme bisam tey mag ñii nga xam ne ñoom lañuy fàttaliku fi mu ne am na ñoom ñoo xam ne nii bis bi waxtu wu nekk da ngay mën a wax ne su ma demee lii laay fekk sëñ bi di ko def waxtu yi damay fekk muy naafila waxtu yu damay fekk muy jàngal xuraan waxtu yu mag waxtu wu jot da ngay xam boo demee la ngay fekk mu def loolu nag defe naa ne ku am programme moo ko mën ñun nag fii ñu ñuy ci dooy murit léeg-léeg ngay waxtaan nit ne ko sëñ bi ndax suba am nga programme mun la suba amu programme bisub la mu mooy koo xam ne ni kon war ngaa xoolaat sa bopp sëñ bi moo bindee faalam bi an na waqta shaxsin min anzi ashyaa yi fastalam bil anzi nee na waxtu mooy li gën a cher li nit di am kon boo koy dépensé na nga seet la gën a seer ci yow nga dépensé ko bokk na ci melukaan yi xam ci murid saadiq mooy nangoo sonn ngir fàggu lu lew loo mën a faje say soxla li ñuy gis suñu mbedd yi muy ay xale yuy wëndeelu yor lu mel ay bagage di tàllal loxo jàpp ne loolu ci taalibe la bokk loolu xëy na lu mën yoonu tarbiya la waaye nag bokk ci fondement yoonu murid sëñ bi daf ne fàggu lu lew farata la yoo xam ne nii ci mu jullit bu nekk la war daal ne toog loxoy neen ak sànq sa dund nag jàngoro juy lore jaajo moo ci gën a mën a lor kon loolu yu mel noonu yenn la ci yi nga xam ne nii mën nañ cee tënk al murid saadiq muy yoo xam ne ni bu ñu delloo ci mbindum sëñ bi dañ ko ci mën a gis ñu fàttaliku baax nag jëmm ji nga xam moo ñu fi dajale muy bàyyi sëriñ ñaanal su yokk ay leeram waaye gis ne moom melokaan yi ñu tudd léegi yu bari mënees na ko jàng ci moom ci bind yi nga xam ne nii gis nañ ko ci ci misaal nii ko waa ji taggee wakkanaa yaral islaaha bayna al aqarib ida xtalafa al ara min haajal ihtidaal loolu jikko ju baax la mooy di defar diggante bu yàqu mooy ñaar ñoo xam dañoo jege ba noppi amuk bu yoo seen biir nga dem defaral leen ubbi ko gu amoon tam ba amoon relation ak murit yëpp waaye am kooku sax ñi nga xam duñu ay murit loolu itam tegtal la ci dégg goo xam déggoon nañ ko njàngaleem sëñ jaamu yàlla gi sëñ bi wax léegi nga xam ne ci lañ ko xamee woon moom itam loolu tegtal la ci ne dégg goo xam ne nii déggoon nañ ko kon muy ay melokaan yu baree bari yoo xam ne nii waxtu yu moo ko dul may waaye daal loolu lañ bëggoon a tënk kon daal ñu jàpp ne képp koo xam yaa ngi sóobu ci yoonu murit te fas yéene nekk murit saadix na nga jël seen responsabilités ba mat sëkk te xam ne mag ñi ñuy fàttaliku dañoo jaayoon seen bànneexu dund mus lu baree bari ci naqaru àdduna ngir mën a àgg fi àgg kon ku jàpp ne mbir mi dafa yomb wala boog dangay toog mu dafay fekk si loola dese ngaa dégg sëñ bi sëñ bi moo waxal bopp al man laa yamliku shay wala yamlikuhu shay nee na murid dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii moomul dara waaye dara moomu ko moomul dara mooy alalam maanaam soxla sëñ bi ko fa bàyyi day jàppandu alalam waaye dara moomu ko tam mooy bëgg-bëgg boppam du dox diggante mukk ak jëfe ndigalul sëñ bi kon loolu mooy takunu muridan suma fii ka iraada fa in lam turid shay'an fa anta murid kon bu ñu tënkee delloo kàddu gi sëñ bi mooy kon ak murit mooy yoonu yarukaay woo xam li ko tox a jóg mooy indi nit koo xam ne nii roy lay doon ci wàllu jikko ak ci wàllu melukaan waaye wàllu nosu ak ay nos ay biram kon ñoo ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.